loolu liy tax nit ki am ko buy buy dund buy dund la koy liggéey waaw ba tax na góor góorlu xam ne àdduna du kër àdduna du kër maam Alaaji Ibrahima Saaxo rahimahullah mu doon wax ni sëriñ Abdul Ahad Mbàkke mu baax ma radiallahu taala anhuma daf ne ko woon ibu mu ne ko ah Mbàkke mu ne ko àdduna yàggut mu ne ko dëgg la de Mbàkke mu ne ko li muy yàggadi yàggadi doomu aadama ko gën a yàggadi mu ne ko dëgg la mbàkke mu ne ko doomu aadama li muy yàggadi yàggadi ak manam a ko gën a yàggadi ak manam moo ko gën a yàggadi waaw àdduna boobu nga xam ne yàggut doomu mu ñëw ci àdduna bi yàggut ak manam yàggu fi war naa gaawtu def luy tax mu dem ca fa nga xam ne nii daa yàgg xéewal ya yàgg mbugal ya yàgg fii passe temps rek lañ fi def àdduna sang ba ca madinatul munawara sallallahu alayhi wa sallam da ko misaalee comme tukkikat bu tukki rek ba sonn jaar ci ron garab di dallu di noppalu diir boobu mu def ci ron garab ga ñun lool diir bu toll noonu lañ def ci àdduna àdduna am na ay junniy junniy junniy at yow amoo te mënoo fee dund junniy at c'est impossible ku dund téeméer sax dañ naan ak gudd fan léegi te téeméeri at démb gàtt fan la woon tey téeméeri at gudd fan la waaye yow àdduna am lu jege junni junni junni junni at dangay wax junni junni ba sonn ba àdduna ameeg tey yow nga soog di ñëw ci àdduna man mii toog di wax sëñ Modou Kébé mii ñu dalal mu war a wax Oustaz Saïd Diallo mii yegg si léegi war a wax ñun ñëpp mën nañ ne at sàngam lañ ñëw ci àdduna te kenn ci nun mënul assuré ne danga fi am téeméeri at dañ ñaan rek yàlla na nu ko yàlla na nu ko demande ngay def demande boo xam ne kenn validé du ko ko mu waxuñ la ne validé nañu ne li nga du bëgg a dund ci at loolu may nañ la ne danga ko dund amagul laa ilaha illallah amagul nga war a dundaat ay at sa dund jeex nga dem nekk fii waaw ci ñàkk daal nekk ci ñàkk xam ne bi nga ñëwagul kenn gisu la bi nga faatoo kenn gisatu la diggante bi nga feeñeeg bi ngay làquwaatee moo tax da ngay dégg diw làqu na fu mu làqu ñuy koy tuddee bërsëx li dox sa digganteeg ki faatu bërsëx lañ ko tuddee <laughs> bërsëx li dox sa digganteeg ki faatu ba tax mënatoo koo gis donte moom mi ngi lay gis nag mhm. ñooy tëdd ci armée lu yoofe ñu ngay na ña ngay séq seen waxtaan ci seen biir ñu ngay yëg li xew ci seen ginnaaw ci seen biir ku faatu ci ñoom sax ku faatu ci ñoom maanaam ku faatu fekki leen dañ koy waxtaanee ci seen biir am na foo xam ne nag buñ fa gisul nit gannaaw bi mu faatoo dañuy xam ne yërëmuñ ko ñoom ñi mu yërëm ñoom ñi ñu yërëm bu ñuy waxtaan buñ gisul kooku ci seen monde boobu rek ñoom ñëpp dañ koy tiis loolu ne andeysaan li téere yi bind nañ ci di ci wax waaw dañuy yëg dañuy bëgg ñoom ñi faatu dañuy yëg dañuy bëgg dañuy am tiis tamit am yu leen naqari moo tax li xew léegi way jur wu génn àdduna sëñ Mamadou ay njabootam di xëccoo alal xamuñ ne loolu luy déranger seen baay la <laughs> buñ ko xamoon danañ danañ annuler procédure yi jëm yëpp ci wà jëm yëpp ci wàllu tribunal bàyyi dee bàyyi kër bàyyi dee bàyyi tool bàyyi dee bàyyi jur bàyyi dee bàyyi terrain bàyyi dee bàyyi alal doyutoon bàyyi bàyyi la maam El Hadj Ibrahima Sakho ba tey damay wax wax waxi waxam lu bari ndax damay déglu waxam lu bari damay jàpp ci waxam yi may déglu lu bari ndax waxu nitu yàlla la hmm. waxam dafa amoon leer danga koy déglu dégg ko jàpp ko du wax wax rek mooy tax nit ki wax lim wax des ci xel yeeg xol yi nit ñi di ko dégg. am koo xam dafa am ndigalu wax du ku ne am ndigalu wax ki am ndigalu wax du bokk ak ki amul ndigalu wax Alaaji Ibrahima Sakho dafa amoon ndigalu wax moo tax waxam yi boo ko dégloo ñoom ku mel ne Sëriñ Sam Mbaye ci ñooñ la bokkoon dafa am ndigalu wax du dañuy jàng nii rek di wax de loolu leneen la du ma ci xóot waaye dañoo amoon ndigalu wax moo tax seen wax da ngay gis day des moo daan wax ne alal joo xam ne ka ko ka ko moomoon ba muy dund doyu ko ba mu doon ut lum ca dolli jotu la am lu ko mate mu dem ba ko fi bu ko fukk dee seddoo ku ne bëgg caa am lu la doy mënul nekk doy lu rekk a ci nekk lu doy kenn mënul doy fukk te tey bëri na famille yu tas ñu bokk ndey ak bàyyi dootuñ tuddante ñu bokk benn bàyyi dogoo dogoo ak dogoo ni mu xaraamee ay mbokk di dogoo nga xam ne trois jours boo dogoo ak sa mbokki julli teg ko ci sa bànneexu bakkan boo jullee yàlla du nangu soo saraxee yàlla du nangu soo wooree weeru koor yàlla du nangu boo ajee màkk sax yàlla du ko nangu ci meroo rek meroog sa mbokki julli trois jours yoo teg ci sa bànneexu bakkan yow nga bokk ak nit ki benn bàyyi benn ndey alalu àdduna miraas alalu miraas tax nga ne doo tuddati ki nga bokkal ndey ki nga bokkal baay ci poñetum àdduna mu ñàkk solo mii nga xam ne Cheikh Al Hadj Malick nee na euh, médd mais comme la àdduna bu xaj yi di xëccoo loolu ñu bàyyi ci xel way jur woowu nag noonu lay toogee àllaaxira gannaaw na ngeen koy defal ñeen fukki guddeeg da ngeen koy defal année bu dellu si ngeen ñaanal kook dangeen ngeen koy fàttaliku fekk mi ngi leen jéppi yéen doom yëpp mi ngi leen jéppi ndax lan xëccoo alalu àdduna ma fa laaj ma saako jëf technicien yi moo nekk noonu ci photo moo daan wax wax jooju waaw wax jooju mat naa bàyyi xel de man Maxtaar Saar mi nekk ci àdduna amaguma li ma bëgg di ut lu ma dolli ci li ma amagum balaa mat ma faatu samay doom samay soxna sama sama buñ ne man loolu ma doyutoon man kese ba maa ngi doon yeewu di uti lu ma ci dolli jotu la mat bettekat bi bett ma ak mën a malakul mawti day mel ne buy ñëw ci yow ay théâtre la day mel ne da ngay gént dalay bett lay def bett yor nga sa téléphone léeg-léeg nga dugg ci internet bi xoola rek yenn vidéo yi nga xam ne dañuy wane nit koo xam ne day faatu ne maa ngi ci seetaan ku def benn montage boo xam ne daf ko tiitre que malakul mawti ndekete buy ñëw nit ki daf koy gis muy wane ay image yu bari ñoo xam ne dañuy ñëw dañuy teen nii di xool dara di wëndeelu di ko xool di daw ñoom dañuy daw ba ne këndëng daanu teen di ko xool moo tax yeneen tamit ne bu nit ki faatoo nañ gëmmal bët yi ndax ruu gi day ànd ak gis bi da koy xool nii buy dem bu malakul mawti di jël ruu gi da koy xool fii mbokk yi nañ delloo si xel yi alalu àdduna benn immeuble bu sa baay bàyyi benn kër gu sa baay bàyyi benn magasin bu ñu luyee bu sa baay bàyyi ngeen ne da ngeen dee du ngeen ko miiras du ngeen dëppoo du ngeen doylu ku nekk am lu ko doy lépp ñàkk doylu kese ko indi ñenn ñi yaakaar nañ ne bu nu miirasee kër gi ñoom ñu yàq ci seen àdduna tax nañu bañ na kër gi kenn du ko miiras ñoom ñoo koy dëkkee ñoom ñooy nàngam ñoom ñooy nàngam ñi naan noo sama papa sama yaay dane woon kër gi bu ko kenn jaay bu ko waxoon ba muy dund ne ba ko kenn jaay gannaaw bi mu faatoo ñu gis ne jaay ko mooy intérêt fam bi nañ teggi waxu baay ak yaay jaay kër gi loolu la diine wax lu ngeen dëppoo gannaaw bi loolay wéy kër yu bari li tax miraas am ci problème mooy li ñaan bàyyi noon na buñ ko jaay waaw léegi ba ñuy dëppoo bàyyi ba muy dund famille bi kenn réerewul ñëpp juboo nekk benn moo yilif ñëpp waaye tey kër gi amatul kilifa bàyyi faatu na déggalatuñ taawu bàyyi ku nekk yaay sa kilifa bopp léegi doom ya am yi doom doom ya amaati doom sët yi màgg juddu màgg ku nekk ne am ci sa alalu baay kon kii am ci alalu maamam kër googu lu mu gën a yàgg problème yi day gën a taawiku loolu mbokk yi ñamali la du sunu waxtaan waaye daal gar na ci sunu xel ñu ne nañ ci fàttalante ragal leen yàlla ci alal yi woy yi ba te ngeen xam ni lu naqari seen wayjur yi yéen ñi xëccoo alal ju mbàyyi lu naqari seen wayjur yaa ngi noonu ngeen xam ko lu leen naqari bàyyi ngi tëdd ca armeel ya ca yoof bàyyi ngi tëdd ca armeel ya fa ya ca ya ca ya ca fu mu fuñ ko mënti denc jéppi lool mere lool njabootam gi bàyyi ginnaaw ndax lan xëccoob dërëm waaw alal joo xam ne bàyyee ko moomoon ngeen koy xëccoo ba du ngeen tala julli sax ñaanal seen bàyyi ndax dem uti avocat ka dem ci ay tribunal ak dem seeti juge ak kii di euh, porte porte plainte moromam fële yéeg a ko wàcc ba du ngeen tala jàng sax fatiha bu sell yéene ko seen wayjur loolu gàcce la ruslu na waaw gàcce la te ruslu na bàyyi lañ ci xel bu wayjur génne àdduna bokk na ci àq yiñ ko yoreel mooy alal jam bàyyi nañ ko miraas ku na jël ci sa wàll ngeen ñaanal ko mu tëdd ak yaram bu sedd waaye am na loo xam ne nii ni muy naqaree ku bokk ci famille bi dégg na njabootu diw gam bàyyi ña ngay xëccoo dërëm noonu la naqaree bàyyi ji leen jur ca àllaaxira noonu la naqaree waaw li ma dugaloon foofu rek mooy wane ne ñi faatu ñu ngi am yëg-yëg di am leen leen métteeg lu leen neex alaa kulli xaalin yal na yàlla dool li sutura